bés boo faatoo bul am njàqare benn yoon ci saw yaram walla ci say yére ndax jullit ñi daañu def la ca war te loola mooy danañu summi say mboole mi yére danañu la sang ba nga set wecc danañu la sàng defar la ba nga jekk danañu la génnee ci sa kër gu yàgg gii yóbbu la ca sa kër gu bees ga nga xam ne defar nañ ko ba mu jekk ngir yow te kër googa mooy bàmmeel ñu bari danañu ñëw ngir fekk ci sab dëj dana am sax ñu bàyyi seen liggéey bàyyi seeni rendez ngir fekk ci sab denc say mboole mi mbir say bagaas dinga leen wan ginnaaw say caabi say téere say wëlis ba ci say dàll la ak say mbubb lépp danga leen di wan gannaaw doo ci yóbbu dara na la wér ni àdduna bi du am benn njàqare ci dem gi nga dem ndax benn liggéey du taxaw ngir sag dem économie bi day continuer du taxaw mukk sëb liggéey dañuy woo keneen jox ko ko ngir mu taxawee ko say alal ñeneen daañu ko seddoo te day lew domm ci ñoom te mësoo nangu kenn ko xam sab denc bés boo faatoo li ngay njëkk a ñàkk mooy sawtur ndax kat bés bu ruugi waddee buñ ñëwee ci kër gi dañ naan ana néew bi waaye kenn du ni ana diw bés bu ñuy waaj ngir jullee la dañ naan indi leen néew bi ci kanamu mbooloo mi waaye kenn du wax indi leen diw ci kanamu mbooloo mi nan bu ñuy waaj ngir denc la ci biir suuf dañ naan na néew bi jege ci pax mi kenn dootul saw tur tur wa ñàkk nga ko looloo war tax nag aw tur mukk aw askan jay mukk dara daraja jay mukk bu ñu siiw jay mukk ak am àdduna bi moo ko ñàkk solo te fañ jëm am solo lool ngir lañuy liggéey fii ci àdduna yow mi nga xam ni yaa ngi dund deewagoo na nanga xam ni bés boo faatoo ñettan ci sa ginnaaw yu mat a bàyyi xel am na ay nit yoo xam ni dañu laa xam dong ci nii wala ci àll bi bés boo faatoo dañ naan anday saan anday saan dong ca la ñu yem say xarit danañu naqarlu ay heure wala ay fan nu delluwaat ci seeni waxtaan ak ci seeni reetaan sa waa kër nag danañu am njàqare semaine walla ñaari semaine weer wala ñaari weer mën nañoo dem sax ba mu mat at waaye gannaaw loolu dañu lay taf ci ay photo di la fàttaliku yenn saa yi léegoo léeg sax ñu fàtte la sa histoire jeex na yow ak nit ñi histoire bi dundocha mooy histoire ba ngay dund ca alaxira ñàkk nga ko bis nikk tey sa alal ñàkk nga ko sa wérgi yaram ak say doom yépp ñàkk nga leen tàggoo nga ak kër yi tàggoo nga ak pale ya su fekkee njiit nga woon tàggoo nga ak soxna ya soo ko amoon dara du des ak yow tey lu dul say jëf dunduk dëgg tàmbali na nag laaj bi fii mooy analan nga waajal bàmmeel ak sa alaaxira ba nga juddoog tey lii nag yayoo na lool nu di ko bàyyi xel bés bu nekk looloo war a tax nuy góor góorlu lool ci farata yi ba ci naafila yi ak di saraxe di ko nëbb ak di jëf-jëf ju baax di julli guddi loolu rek ka mën a tax ñu taxe ca kanamu yàlla ëllëg lu tax waa bàmmeel di bëgg sarax bés buñ delluwaatoon ca àdduna lu tax ñu taamu ci sarax comme ni ko yàlla waxee rabbi laa axartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa lu tax néew du bëgg bu dellu ci àdduna mu dem aj wala mu dem umra wala mu julli wala mu woor waaye sarax dong lay bëgg bu ñëwaatoon ci àdduna boroom xam-xam yi nee nañ li tax mooy néew bi dem yowmal qiyaam day gis ña daan saraxe ci àdduna la leen borom bi di defal ci ay teraanga moom it mu bëgg koo am moo tax day bëgg bu dellu waatoon ci àdduna di saraxe na ngeen xam ni bépp jullit ëllëg yowmal qiyaam lam daan saraxe ca loola lay kerloo